سرين توبا لم وحن موم لدون موم دفني عبد الله وخديم رسوله موم لدون لولو نك ماي يالله جوخي ييب مو تي كاوي دا نام نك ني مو جاخال ليكو وارال موي تباخو الدين بي تودو الاسلام داف كو تساري تي بير يوننتي ييغا خامني نيوم لا يابالون ني نيك نينتي امتو muy ummatu seydina nuux ak ummatu saydina ibrahim ak ummatu saydina muusa ak isa ak ummatu saydina muhammad soo gisee ñu tudde yonante bi xaatimu nabiina mooy tabax boobu ma wax ñu séddale ko ñeenti xeet yooyu seydina nuux dañ ko def loolu mel ne gas fondation bi moo ko xeetam ba addinay dox di dox di dox ba liggéey boobu àgg mu war a des kuule keno yi ak yëkkati li war a jëm ci kaw kooku di Seydina Ibrahim ba mu ci jógee mu des kuule dal bi defar lépp ba finition des finition lañ def loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu tudde ko xaatimun nabiina sëriñ Touba nag loolu mu doon di abdullahi wa xadimu rasulihi mooy li ñuy wax maintenance ci liggéey tabax bu àggee dees koo war a jëfandikoo dëkke ko bu ñu koy dëkkee nag dafa war a am toppatoo boo xam ne amul fu mu yem moom moo tax liggéeyu sëriñ Touba moo ci gën a màgg te it xam-xam bu noox amoon ak sañ-sañam jox nañ ko sëriñ Touba ndax kuy def maintenance da ngay xam xam-xamu fondation buy waaj a ak buy toj ak buy waaj gawi ndax lu ko fondation dana daanu te doo ko mën a xam-xamu Seydina ibrahim ak sañ-sañam am mbóotam jox nako Serigne Touba ndax momit lam tabaxone ak lam liggéeyoon Serigne Touba mo wara yor maintenance musa ak Isa lañu len joxone Serigne Touba batine ba daf ko yor ak xam-xam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it tëj lépp yor ci abiji dafa fab tabax bi jébbal ko Serigne Touba ne ko bu ci dara dugg lu ci bokul bu fi dara génne lu ci bokk te lu yàqu na ko defar moo tax Serigne Touba wax ne nazaani min alwara albaqi alqadim allamahum bi annani alabdul xadim Serigne Touba nee na yàlla daf ma sepp ci bindeef yi joteetuma ak ñoom dara te xamal na leen ñoom ñëpp te danañ ko mas a xam ne من العبد abdul khadim mom la doon mu قد انصرفت حاجي إلى فاتق الربق وإني له عبد ولي جاد بالعتق من دما جوخ سان بروم سما لب موميتام لي اب سانغا ام لب موي غوريل مو ديف مكو مو اني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي wa bil itqi wal itlaaqi tuqriini al itqu wal itlaaqu nag jaam bu nangum njaam li ko sangam di defal moo tudd al itqu sëriñ Tuubaa sunu borom daf ko ne lépp lu ma daa teg ab jaam ba nga xam ne su ko defee war ca am lu baax bu ko deful ñu war ko caa yedd sëñ Tuubaa yàlla daf koo teggi loolu daf koo goreel sëriñ Tuubaa dara gàllewul ci moom loolu na leer dadul ku ñuy topp ngir def ak ba mooyam ci moom mooy wali jaada bil al itlaaqu nag mooy li ab euh, li li li li li li euh, iqu mooy li boroom yàlla di may ab jaamam itlaaqu mooy li ab sang di may ka koy liggéeyal ci këram kër goo dem booy ba fa nekk di liggéey gis ngeen ni bu boroom kër gay dem caabi yooyu yëpp da koy bàyyeeg moom day dem ca waañ wa di dem ca néeg ya di dem ci fépp ndax loolu boo ko amul doo mën liggéey kër moo tax bi ñu ko defee mu rasul yi moo waral ñu may ko ci biir nguuru sunu borom gi lu ko ci neex def loolu it na leer sëriñ Tuubaa toppatuñ ko dara ba di ko ca fay mbaa muy am yaraanga ca la nga xam ne bu ko bindoo woon ba bañ koo def muy ko ñu topp naan lu tee mu def lu lu tax lu tax defu dañ koo goreel dafa amul limite ci sañ-sañu nguurul yàlla gi li muy def amul sabab amul raison amul logique la ko neex lay def sañ-sañ la tudd la yàlla may ay taalibeem it da ko waxal boppam luñ ca diingat waxam lañu diingat sëriñ Tuubaa def ni wajjaha rabbiya li gayri man biya taallaqu adan yulaaqi l agbiya sunu borom ñi ma jébbal seen bopp teggil na leen lor yi nga xam ne dafa waroon a jëm ci bindéef akramahum rabbi bi annahum maa ينجون من نقم باق قمع سونو بروم تيرال نه ساماي طالبي نه ليپ لوي مصيبه ولا مودي اك مبوغل دانا لين تيغ نفعهم دنيا واخرى نافع بما به تاتيهم المنافع لولو موم بياكار نه نييب غيس نين سيرين توبا نينا يالا دو جوخ ساماي طالبي تيرانغا يالا دا فا جوخي لي ماي تيرانغا لا ماي طالبي لي جوخي تيرانغا tiranga boko amé bu jéxé day jéx waye luy maye tiranga da dul jéx waaw waaw sunu borom joxna talibé seigne touba Tuubaa liy maye tiranga najjaahum albaaqi min an-niran dunya wa akhra wa min al-khusran sunu borom musal na samay talibé ci sawaraw adina ak waw alaxira sawaraw adina nak du wi laké moy sawar ak bañante wa nazaana ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرور متقابلين طالب يب دي بغنتي كين كون سا موروم ام مولا غنن غام لولو نيوم دونغ لاكو يالا ديفال ساورا والاخيرا نك موي وي نيپ خام طالب دو تا تابي سيغ توبا كو هرب كل من له شقاوة الى سوايا ولي التلاوة سيغ توبا نينا كو يالا نروب nga texe يالا دالاي خير تي nga باغا نيو اندك مان لولي مكو وجه ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل خير يشتهى سيرن توبا نينا طالبين بو ني غناو بو دوجي بارسا لاكو فا دالي باموي دوجو ادنا لوكو نيه لاي غيس لكل من بيتعلق نجا من كدر الدنيا وفي يوم النجا سيرن توبا نينا كيب كو جيبلو تي موم موتشو غا ادنا اك الاخره تي نخ نخ ادنا اك يو الاخره دوتو كو غيساتي تعبذي تعلق بي يزول بجاه من اليه وجه النزول Serigne Touba nee na ku ànd man sa coono jeex na ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akrama rabbi kulla man taallaqa biya wa kulliya bi amnin atlaqa Serigne Touba nee na képp ku ànd ak man dootoo taggoo ak teraanga tey mbaa yàlla googu mu ma mbaa yàlla itam fu ko neex jëm nee na mayaale nañ ko taalibe yi wa kulliya bi amnin atlaqa te du ànd ak lenn ci ñàkk ñàkk ñàkk jàkk سرين توبا ني بيتعلق الذين اسلموا من جن عصري دون من لم يسلموا واخنا ني جوليت ينك اي اي جن يي نك سي دين الاسلام ييب فونو مانا نك سي ادينا سرين توبا نينا سونو بروم ديغال نلين با نييو نان سي موم جيبال كو اي روم نيكو نيت ني دافي نينا جن يي ييفر نيو جيبلو واي جن جن جوليت سرين توبا نينا جيبلو نان علي من الله ذو الجلال بعصمته من ضرر الاضلال سيرن توبا نينا يالا ديمبلينا مانا باغا خامني رير اك ريرال نيكاتو تي مان زاد الشياطين الهي طردا بذكره ولي منايا سردا سيرن توبا نينا سام بير سيطان اموتو تي يون سيطان لومو ياق دي ملني اسيب جو سوتكو تي سير ياقو ياقو يي مانا داخ اك ديكو نيوار لولو دو سيطان واي سيطان لومو ياق فخه جيخ نتا سيتاني أمتل كتالي بيوم سرين تبا موكوة يقودني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقاد لي يكون سرين تبا نينا القرآن مومي ومت فما جمو في جمي سرين تبا نينا القرآن سنو بروم وخنكو لن يونتي بير القرآن دي موتو مكون يكتنين كدوكو سرين تبا lii mooy sëñ Tuba lii mooy yoonu sëñ Tuba lii mooy taalibi sëriñ Tuba alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu